<laughs> nyona Tamba nyona Tamba wah ini mom moy la Tamba mo bari ne di wajah Jamra dañuy bañ lii damay eh, bama ma ko waxate ya, ma bank la ci sarka ya, yow yaa lalu kayak kay xam naa ko ndax bu ci nekkoon di do sol sol bon li nga wax dama maam waaw sa bopp wa sa der bi di melni ya mana fen ya? yow ya mana fen yow eh eh waroo woon dem tàngooru Tamba yi war na jeex de mu ne Tamba dama yaakaar ne benn buntu safara bi daa féete Tamba em Heulogan Adam Anh billaahi booy bu jàll ngay tuskare père ku la woon kër gi booy da booy doom raam dëgg nga iril booy bi ngay wax su doon mën a ba wan yow yaa mën a fen nijaay yow doo ma ci yow leeral depuis démb ñu ngi koy sant. weer bi kenn lañ fi bind. indi ñu ma fexe ba ma woor ci weeru téléphone bi. du ma woor waaw waaw ni ngay wax nii nag. maa tey. yaa ngi sant. Idrissa maa tey. booy sàcc. fer ndox. sàcc ndox.